Bonsoir chers auteurs, auditrices de Safina FM 98.2 qui est né depuis Grand Yoff, Scat Urbam à Dakar. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter votre émission thématique sur l'environnement intitulée Le coin du citoyen. Après quelques jours d'absence, nous sommes là aujourd'hui et de rendre grâce à Dieu de nous avoir donné encore une force de pouvoir exercer notre émission qui est celle de diffuser, d'informer et d'analyser et de faire des approches au niveau de nos auditeurs et auditrices. Mbok auditeurs et auditrices je ñu déglu ci waxtu wi ci radio Safina FM 98.2 seen bon Abdoulaye Diallo de leen ko présenté ci waxtu radio Safina FM modi di mbégte mu rëy tey quelques ginnaw quelque ci ay bis yi nga pour présenter leen émission thématique bi nga xam bi moy am semaine bu nekk ci Safina FM ñu lundi di gërëm di sante bu baax ci déglu bi ak téway bi nga ñi addo di déglu toujours ci waxtu wi di wax rek tey émission nous ngi koy euh, le développement durable Nous euh, ñuy faral di dégg la lu faral di gis am pour pour expliquer suñu auditeurs lan sababu lan développement durable Euh, qu'est-ce que le développement durable Historiquement, dans les années 1960, les mouvements écologiques émergent donc en Europe et en Afrique du Sud et du Nord. C'est en 1972 une première réunion a eu lieu à Skolm pour discuter des questions mondiales traitant donc d'environnement et de développement. Cette rencontre historique porte le nom de Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain. Donc la notion d'environnement et la notion de développement, on va y revenir après. C'est en 1983 les Nations Unies mettent en place la Commission mondiale de l'environnement et du développement pour étudier la détérioration de l'environnement à l'échelle mondiale et émettre des recommandations. Cette commission, donc présidée par Madame Gro Harlem Bruland, donc cette dernière a pu publier donc euh, la résolution finale de cette rencontre. Et cela donc a donné, suite à cette rencontre, euh, Madame Broland disait Notre avenir à tous, qui deviendra donc rapidement une conférence en matière d'environnement, sera donc l'origine du terme développement durable. Ce rapport nous apprend que le développement durable est celui qui permet à la génération actuelle de répondre à ses besoins sans compromettre la capacité des générations futures et de répondre à leurs besoins. Le développement durable est une manière d'agir en société qui offre à chacun la possibilité de se nourrir, de se loger, de se vertir et même de vivre en harmonie et en pleine santé dans un milieu agréable et épanouissant. Il explique donc l'utilisation raisonnablement de l'eau, de l'énergie du sol, de la nature dans le souci de préserver donc nos ressources naturelles pour les enfants de nos petits-enfants. Désormais, on sait qu'il ne sert à rien de se protéger ou bien même de protéger l'environnement si l'on ne se soucie pas de la pauvreté, du niveau de vie, de l'éducation des hommes. Cela dit donc, le développement durable propose de prendre en compte des dimensions à la fois sociales, économiques, écologiques, voire même culturelles. Euh, les crises graves et d'optimiser donc le bien-être des populations du monde d'aujourd'hui et de demain. C'est ça donc euh, sous forme de résumé que qui explique donc la notion du développement durable euh, Mbok auditeurs yi ñuy déglu So gisee tay ñu indi leen thème bi Mako don addu diko wax ci njalbenu ubité émission bi di wax rek né euh mudi mu reuy ginnaw ba ay nit amee cofeel ci radio Safina FM 98.2 di uddu ti di wuyo encore téléphone 88 628 10 95 88 628 10 95 ñom ñu am solo bu pour ñu len di indil yenn ci thématique environnement lu environnement dañ ko indi tay ñu développement durable mënuñu wax développement durable te indiwunu lu ñuy wax environnement ak développement environnement mooy lépp lu ñu wër environnement mooy li lay may ngay xoole environnement la say bët day dund environnement sa bakkan da koy dund sa gémmiñ di ko dund donc euh, loolu moom mooy environnement kon environnement bobu ñuy wax ci seen radio Safina FM 98.2 ñu leen koy indil ci waxtu wi di wax rek ne tey ñaar aspect yooyu ñuy wax moo di le le développement durable comme mooy ndeyu lépp li nga xam ne lii tey fa loon toll mu doon xalaat bi nga xam ne bii mu ngi juddu ci ay années 1960 mu ngi juddu ci ay années 1960 euh, ci 1983 Djembe 1987 Nations Unies dajale ay Rio. ci tënk ben résolution moi ben ponk bu ñuy jagleel li nga environnement euh, jagleel koko modi, di ñu ne environnement mooy li nga xam ne lii lay may sa nekkee nekkin bu kon environnement bi dañ koy boole ak li ñuy wax développement lan mooy développement développement mooy li lay may pour mu mën la dimbale ci sa nekkin ci lan sa jàng ci sa wér yaram ci sa formation ak sa koom ak lépp li nga xam ne li dafa ittewoo pour xeex luy wax ndóol kon ñoom seen tontu bu njëkk moo di naka lañuy def pour xeex ndóol ci àdduna ñu ne bu njëkk bi environnement dañ koy def donc ñu jagleel ko lu ñuy wax agriculture ñii jëm ci li ñuy wax bio ñii jëm ci li ñuy wax agriculture intensive ñenn ñi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci beneen wàll bi ñoo ngi liggéey waaye gis nañ ba léegi am na beneen alaya bi ci indi ba nit ñi xaw a ñàkk am li dundé changement climatique moy ñak taw ñak taw qui ba mu ci yenn ci réew yi jant muy ouest ñooñu yegg nañ ko nuñ ko gis nañ ne rareté taw bi lu ko rek moy ñaari système ben système météorologique benen système bi moy cycle kooku dañ ci ñëwaat ci ay émission euh, ginnaaw 1960 bobu ñuy wax ñu créer li ñuy wax mebetu pour créer li ñuy wax euh, le développement durable commission yi taxaw na ndaw suñu naan Brundtland moom moo publier résolution bobu waaye yemu ci dafa ne il faut que nous, pour nous agir en société il faut que nous ayons la possibilité de se nourrir il faut que nous am ay il faut que nous ayons ay yon, il faut que nous am ay ñuy pour nous mën Nous, ne bi modi de ande ak donc il faut que nous am ay logement nous bi ne mënuñu am kër mais il faut que ñu se vertir mooy solu ñu jóge ci loolu ñu ne kon nit ki am na fu mu dëkk am lu Nous dundee am lu mu sol kon war na mën a vivre en heureux mooy war na mën a bu kon bu santé ci dund bu sell indil mu meuna am cohabitation avec ñi nga xam ne ñom lay nekkal toujours il implique donc l'utilisation raisonnable de l'eau de l'énergie du sol de la nature mais tout en donc préserver et protéger ces ressources pour nos petits-fils ginnaaw ba yàlla defee koom indil ñu ay koom mooy koomu suuf lu ñuy wax ressource naturelle mooy li nekk ci géej gi li nekk ci biir suuf si moo di pétrole ak gaz ak yeneen ak yeneen yu mu àndal waaye dañ ne pour que développement durable boobu ñuy wax pour mu tënku ci pérennisation ci luy fidéliser au passage ñoo ngi bu baax Thierno Hamid Yara di wax rek Bobo. fidéliser pérenniser dara amul fidélité kon il faut que nga xam ne que nous la am luñ ci sunu ay que sët muy président bi fi ak ressources naturelles du Sénégal mom euleuk war nañu am charte buy pour ci am wal euh yenn rew yi mel comme ay Libye ak yenen rew yi nga xam prospérité la solidarité donc euh, économique kon pour nous protéger donc cet environnement-là il faut nous soucier donc de la pauvreté de nos concitoyens moi la population Amna ñi nga xamné amuñu fuñu ñu dëkk dañoo loué waye ñoo ngi dund amna ñi nga xamné loué wuñu amna dëkk waye mais ñoo ngi sonn pour dund amna ñi nga amuñu ñaari yépp waaye ñoo ngi solu kon defe naa ne pour ñu am donc équitabilité ci suñu dundin il faut kon ñu am ci lu ñuy en termes de d'occupation de ces derniers et ces conditions donc qui va nous permettre de s'épanouir par la prévention, l'accès aux services de santé et le suivi, la sécurité individuelle et collective dans les milieux de vie, la liberté d'agir et d'exprimer au sein d'une communauté. La liberté donc, selon ses croyances et sa culture, et dans le respect de celle des autres cette liberté. Même au-delà de cette liberté, l'accès à une occupation convenable, valorisée par rapport à ses besoins, en est encore une illustration. Toutes ces conditions réunies donc donnent à chacun la capacité de prendre en main son avenir de façon saine et harmonieuse. Nous sunu ñaan suñu technicien maison Aruna nous may une note musicale nous souffler pour nous garder sur l'émission. émission <coughs> Merci Aruna de cette bête note musicale. Merci Aruna. Et je le disais tantôt, pour que nous ayons une vie saine et harmonieuse, il faut donc euh, qu'il y ait ce triple levier même ou quatre leviers. Que sont donc la prévention, on ne peut pas parler de prévention sans parler de la santé. La sécurité, la liberté, l'occupation et même la valorisation de nos actions. Donc, en principe du développement durable, technique yoyou, il faut que nous soyons Mais parallèle à cela, ci walu ndey joram danoo am li nga xam dafa am solo mom lañuy wax les principes les principes yi nga xam mom moy andak développement durable moy les principes du développement durable Li ay fondement la yi ma doon wax sank ci développement durable dekk way solo dundu lol yëpp daf ci bokk lepp lan la pour xex ndol waaye ci beneen wàll wi ñu and ay principes yu ñuy wax les principes du développement durable principe yooyu bu ci njëkk pour que ñu mëna am li ñuy wax développement durable moy suñu nekkin sel ci jamono ji ñu tollu il faut kon ñu am li ñuy wax la précaution euh, précaution suñ koy wax modi dafa am lu muy andal. n'attendons pas l'imparable pour agir ci principe de précaution yooyu mu ne war ñu toog di xaar ba nu ba mu ne ba mu taxaw nous sommes en di de ko kon nan leen anticiper ci li ñewugul pour mieux donc n'attendons pas l'imparable ou bien l'hyperable pour agir ñaarel bi modi ci principe du développement durable mot la prévention waxon nako sank encore prévention moyenne Fagou... farlu taxawu lieu de dafa bokk ci prévention ci prévention ci santé ci prévention ci environnement ci prévention dafa yaatu fii nag dafa ne mieux vaut prévenir que guérir mieux vaut prévenir que guérir yàgg a koy dégg ñu nous wax kon prévention égale Fagou... que pour nous mën a

su nous dal la nak war nous dem faju motax indi la ñaari principe bobu principe bi mu indi sur l'économie C'est comme yow yow mi nga xamné yaay dundu. mi nga xamné yaay dundu ci 21 siècle mi nga xamné ya en 2018 2018 euh, en termes d'économie ci principe bi moy donc une bonne gestion il faut que li la yàlla comme ci koom nga mën ko gérer mu ki veut voyager donc loin ménage donc sa monture et réduit ses gaspillages lolu dénkaane la ci terme de gestion ci bonne gestion ñu jox leen rek xayma ci li ñuy wax ci yenn ci les fourmis ci sank lañ wala ci melne melantan amul ku dàq économiser ñooñu way yalla daf leen ko jagleel ba jagleel leen sar mu meññu ñun ñi nga xam ño am suñu xel mun a taataan ci sen sen ay comportement ak sen développement parce que histoire wax na ci lu yaatu ban ko jappé kenn ci ñom tëj ko ci butéel ban ko laajee dafa né pepp dugub bi dina ci dundi at pepp dugub bi dugub ci dundu at Waji ji di ko doon tëj dafa nako ko mënul nek ben pepp dugub nit mënu ci dundu at waye mom. ci prévention ak gestion bi yalla may

sooy tukki na nga bañ a yàq kuy tukki fu sori doo yàq doo yàq ndox mburu mi ak miskit beeg gerte bi ñu la joxoon ne am sooy tukki nga yóbbaale ko nga dakk ko sa nafa wala sa biir poche defe naa ne war nga xam noo koy lekkee parce que egg ko moo tax mu ne qui voyager loin ménage sa monture et réduit ses gaspillages C'est mu développement durable Le développement durable il y a encore un principe bi la responsabilité individuelle et collective cette responsabilité là est donnée à tout un chacun de nous que pour nous... développer harmonieusement dans ce monde global ce monde global ceci dit que ku nek ñun buñ la jox commencé ci liberté daf ci sécurité bok ci devons yaram bok ci occupation bok ci dafa am lu am solo moy Nous ponk bi may la responsabilité donc de chacun de nous qui dégrade doit réparer ci responsabilité individuelle mu ne la yow mii di nit soo demee ba dagg benn garab na remplacer celui qui dégrade la nature muy le sol muy ak fu munti doon doit la réparer jën yi ni napp ci biir ak des filets non conventionnels ñooñu di ko def suñu nappee jën yi nga xam war woon génn nañ ko war a delloowaat moo ñëw moo gën ñu génnee ko rey ko te fekk amul benn utilité te yooyu ñoo waroon dund jën yu mag yi ñooy dund ci jën yu ndaw yi ce monde est fait ainsi jën yu ndaw yi dañuy dugg ci biir jën yu mag yi ginnaaw ba jën bu mag gémmi ubbee gémminam ci lay jën bu ndaw dugg pour dund lan lay dundee kooku environnement la encore danañ ci ñëwaat parce tey lépp li nga xam ne lii tey bunt euh, la mooy ci biir ndox muy jën boobu di dund ci ndox la nekk ndox ma mu nekk am na ndox bu ñuy wax eau douce eau salée eau saumâtre ci eau yooyu ñuy wax ci ndox yooyu ñuy wax jën bi dund ci biir géej noowu ak jën bi dund ci biir dex ak ci maar yi

so génnee nak nap ba paré, génne ay jën yu ndaw te yoyu waru ñu dund ci biti nga ray leen tu es responsable moo tax sur la phase de la responsabilité des principes fondamentaux de du développement durable mu la responsabilité individuelle mu fi mais la responsabilité encore collective mu ngi fi lu ñu bokk ñun ñëpp buñ ko lu ñu buñ ko sax saxé ci mu jeex kon il faut bis ya yàqee rek nga réparer mu ne juróom-ñeeli ponk ci li ñuy wax principe fondamentaux ci développement durable moy la participation participation boobu suñ koy wax modi ku nekk si ñun da nga war indi sa sa sa sa doole indi sa mën-mën comme technicien bi ni mu toogee di joxe pour ngeen auditeurs yi ngeen mën ko dégg ku nekk dafa complémentaire à l'autre pour que émetteur bi ak récepteur bi du dégluñu day jóge ci micro jàll ci technique technique génne ko mu jàll ci kaw ci kaw am na yeneen faisceau yu nekk ci kaw mun la ko may yow mii di auditeur nga mun ñu déglu kon il faut que mu am donc un récepteur ci lépp lu ñu mën a addu ci àdduna donc euh, loolu benn ci ay principe la participation donc nous sommes tous concernés tous décideurs et tout acteurs. ñun ñëpp li ñu moom moo suñu réew liñu ñu moom mooy suñu aduna ku nekk si ñun war nga ci indi sa part de responsabilité war nga ci indi sa part de ñu ne xam ne am na foo ko gën nga naan sa réew na la defal bala nga naan sa réew na la jox da ngay njëkk wax yow mii lan nga defal sa réew ma jox len rek ben anecdote bu ndaw élève bu juddu état foofu la njëkke ci mom ci wérgu yaramam ci wérgu yaramam xalé bi judduna na sage-femme moko rawlé wala matrone wala infirmière wala képp ku muntu doon rawlan xalé bi xalé bi jóge ci ben environnement environnement boobu nekkone environnement la bi nga xamné bi bobu tamit fay laaj émission spéciale parce que l'âge embryonal la won jogé ci âge embryonal nek fœtal wat ci fœtal nek enfance moy judduna ñu né bébé ba né bébé kon état commencé na ñëw def ci mom modi di ngi assister sur le plan sanitaire fay na docteur bi état moo koy fay lumière bobu nek dispensaire bobu état moo koy fay euh, lal bobu mu nek yeneen ak yeneen ak yeneen lu muy accompagne yëpp ci xalé bi ba xalé bi juddu ba am un an yaayam di ko nàmpal yaayam ko contribuer moom tamit ci développement am ginnaaw bu mu ko njëkkee jël au devant xalé bi di dem di dem di dem ba am âge pour dugg école muy école publique wala école privée au passage ñoo ngi gërëm euh, notre doyen euh, monsieur Ndiaye bi fi nek directeur ci institut Cheikh Omar Foutiyou euh, dafa am solo ñuy wax lu melni. xalé bi juddu ñew ñu inscrit ko à l'école enseignant bobu di jangal dafa am fu mu jaar dafa jaar ci cycle élémentaire secondaire universitaire am lu muy am ba tey muy jangale kooku état dafa am lu mu def ci mom kon mom mi jangale tay dafa rendre ce qu'on appelle la monnaie dafa dello boom ci boy bi parce que liñ ko lebaloon la fay kon kooku amna droit wax amna droit yëkëti kaddom ne li bëgg ko parce que mom contribuer na ci développement soit direct ou indirect ci réewam ko war na waye balaa nga naan na la defal na fek nga defal sa rew ci participation individuelle bobu ak participation citoyenneté bobu may wax kooku tamit émission la dina ko indi sur l'éco citoyenneté moy wuyo émission bi moy le coin du citoyen kooku tamit émission la sur le coin du citoyen moy wuyo émission bi kon modi, ñun ñëpp nous sommes des acteurs nous sommes tous concernés au développement harmonieux du pays. Nous deux, nous sommes tous encore décideurs d'un principe, décideurs encore d'un acte. comme moi, cinquième point, ci principes fondamentaux du développement durable. Sixième principe la solidarité moi, La solidarité moi. la vie de société, la sociabilité comme moune dans le temps et dans l'espace léguons à nos enfants un monde vivable Révisons donc les fossés de nos sociétés et de notre monde à deux vitesses Fofu, il jara encore méditer Munuwa solidarité mënuñu wax solidarité te waxuñu la vie des sociétés mënuñu wax solidarité te waxuñu la cohabitation ak la convivialité kon yooyu yëpp dafay and c'est des principes loolu tamit émission la euh, mu ne il faut que ñu am luñu bayil suñu ay sëtaati sët ñu baña a baña dénaturer souf si gàncax gi alam nos ressources naturelles buñ ko kon il faut ñu soral li comme nous, may nañu xam-xam ñu xel nañ dund ci dundin bu vivable bu mucc ayib ci lan ci yaram ci solu ci xex pollution ci xex Nous ci ci ci ci te nekk ci société bu vivable ñu xalaat ne mënoo nekk encore ci li ñuy wax solidarité mënoo ko am te amoo lu ñuy wax euh, la réduction des deux fosses mooy yàq ce monde à deux double vitesse nit ki liggéey na at ci benn bis mu yàq lépp amul ben diiné bu koy nangu yàq baaxul motax tax indi le sur la solidarité amna fi ay économie de solidarité solidaire yu ñuy wax c'est le terme économiques mais il faut que ñukay ñukay gëna approprier ci zakat amna na ci ci leg amna ci ci don amna ci ci yenen ak yenen comme amn'a, nan leen gëna fexé ba lolu nous préserver ko nous ñu rendre encore plus efficient ba taxna euh ci cinq principes ma dem ci pour modi principe de subsidiarité subsidiarité bon ñuy wax modi traitons donc les problèmes le plus près

les associations des parents d'élèves euh, les élus les délégués de quartier ci lan principe de propreté principe d'hygiène et de prévention dans nos établissements Écoli. les émission Écolie, trop ginnaw ba xalé yi defee trois mois de vacances waroon na am ben continuité sur le nettoyage waroon na am ben continuité sur la réfection waroon na am ben continuité donc sur les déchets waaye dañuy bàyyi non école bi taw bi ñew ñax yi jóg nit ñu occuper douche mu am ndox mbënd am ñu nu affecté ci biir école yi mais heureusement alhamdulilah ren amul ben école bu nan tay fi ma gis ñu ne recevoir na ay sinistrés kon li ñu ñaax yow mi directeur d'école yow le préfet ou bien yow le maire de cette localité dans chaque école il y a am ben comité d'environnement un comité pour de lutte ou bien un comité pour l'environnement. environnement avons wax développement durable nous chaque jour ci année yi ci état en 2012 l'état a indi créé un ministère bu ministère de l'environnement et du développement durable Et Afrique le ministère de l'Environnement bu environnement teg nañ développement durable Quand nous avons egg foofu kañ Quand ñuy egg donc ci il faut nous teg des maillons des jalons il faut ñu donc des points yi nga c'est des points de repère yu ñuy mën a pour xale yi nekk ci jàmm munoo wax éducation te waxoo environnementale ñu bañ ko confondre Nous bañ confondre éducation à l'environnement et éducation environnementale mbokk yi auditeurs yi ñuy déglu yéen ñi di directeurs yi yeen ñi di maîtres yi chaque classe allo. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ah monsieur Diallo si monsieur Diaw wax dëgg yàlla. ah mbokk Jawara Jawara. na a na nga na nga def temps yii dama voyagé woon moo taxoon. oui. mais day a ñu jawar bi quatre cent soixante bu baax. Jawara kon waaye nag franchement dégg nañ dinaa trop ci émission bi. merci Jawara. vraiment ça fait plaisir quoi te li nga wax effectivement environnement bi. Mhm. Euh, ça concerne tout le monde. Mhm. en partant de l' école d' abord parle de l' sax c' très important. Mhm. parce que loo xam ne quand les enfants sont en vacances. Mhm. il faut continuer le travail. Mhm. c'est l'environnement. l' environnement. une pour que dans mhm. mais effectivement c'est ça c'est ça qui se passe euh, au niveau du Sénégal. Mais hein? c'est pas ça quand même. il faut essayer euh, quelque chose boo xam pour nous nous nous rappelle bien nous y' nous un bon avec les, les gars des commandeurs de la France. Mm -hmm. Bon, madame, on est au niveau du il a, il a créé des jardins. Mhm. Nous, nous commençons à faire des jardins, on avait les, comment, des carottes, ces choses-là. Mhm. Et puis on vendait ça. Mhm. Ensuite, à la fin de l'année, ils organise toujours les projets, une sortie. Donc, il nous a mis dans, notre tête. Attends, enfant, on a 12 ans, 13 ans, 12 ans, 7 ans, comme ça. que l'environnement est très important, donc supprimer les choses, donc supprimer cette école-là, je m'en rappelle très bien. Mmh. Franchement. Mmh. Donc, l'on montre à moi, moi, quand on parle de l'environnement, ça me colle du coup. Machallah. Mhm. Bah oui. Donc, à mon avis, il y a des parce que tout ce qu'on peut faire, sont les deux qui doivent faire par les initiatives. Mhm. mais dès que ko les initiatives. c'est comme nous comme les boutiques là les là les commerçants dans les dans les. vraiment chaque da nga war def benn bouquin livre ñoo jox ko wala ay tracts yoo xam ne gars yi les gens pouvoir avoir servir. merci monsieur Diawara. Diawara maa ngi lay gërëm di la sant mu di un fidèle auditeur ci li ñuy wax ci Safina ci seen émission environnement ma doon wax rek sànq pour tënk li ñuy jotee li ci jote des bëreetul monsieur Diawara ñu ngi lay gërëm di la sant euh, tey. dama jogon pour def ben reportage sunu école bi nek fi dañ ne balaa nga da ngay ñëk balé sa buntu kër ba paré dina dugg ci école institut Cheikh Omar Foutiou lacc enseignant yi lacc élève yi nak lañuy dundé ñom dundinu environnement lan mooy environnement tay war nañu am ci buntu classe bu nekk wala ci cour bu nekk ñu am fa des récipients yi nga xam ne xale yi suñuy génn di ci raxasu moom mooy li ñu doon wax sànq fagaru bala fagaru dafa bàkk ci fegu euh, ci mbalin mi ñu commencé jàngal xale yi man je suis disponible et prêt à donner des cours ou bien même xale yi pour dimbal leen sur le système du tri encore en transformant quelques cartonnets quelques

d'avoir des personnes qui nous écoutent loolu moom rendre la fidélité de quelqu'un qui parle et de quelqu'un qui l'écoute tant que réciprocité le feedback day mel li ngay wax kenn déglu la day mel li ngay wax day dem ci sans que nini ñi prenne prendre la balle au rebond Nous sommes notre directrice di gërëm auditeurs et auditrices yëpp di may nopp mbokk yeeg ñi di wax euh, euh Safina andina ak euh, daayira bi nga xamné momo fi nek moy daayiratu Safinatu sadat bi Thierno hamir Yero Bane ñuy am ay journée de fraternité euh kok tamit thème la euh modi ay bis yi nga xamné mom lañ ko jagleel moy ci mois de novembre ñaarelu fan ci mois de novembre ak ñetteelu fan ak ñeenteelu fan mooy du 2 au 4 novembre 2018 fii lay amee ci Scat Urbam euh, eggugun ci ñoo ngi ñaan yàlla chaque jour que auditeurs yeeg auditrices yi yëg événement boobu mu di seen événement ñu koy def chaque année et chaque jour loolu nu amoon tey di leen indil seen émission environnement seen mbokk Abdoulaye Diallo di leen ko indil ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yalla di ñaanal ñep jàmm tawféex ak salam xale yi fi nekk ñi ay journaliste yalla gën leen may koom gën leen may taxawaayu ba ñu mun yoré sen ay yëf bop ba ëlëk fu ñu mun tollu tamit ñu mun leen citer parmi des sénégalais je dis entre guillemets un vrai S des sénégalais sénégalais moy ki nga xamné ki da nga jëm pour le développement de ton pays et pas pour dire à ton pays na la jox wasalaam loolu amul leen indi merci.